bedd bi mu ngi bëgg am parce que làmb léegi fi toll nii actuellement mu ngi jugee ci benn étape jëm ci beneen étape étape bi mu jëm mooy site internet yu bari dañ leen di génnee ci làmb ji euh, yow mi organiser làmb ji nga ubbi sa site web bopp euh, def pay bi doxal ko mu dox te doo ci ànd. xam nga ji li coow li fi amoon bu ñu fàtte amoon na ci conflit télé yi. Mm-hmm. entre la 2S. Mm-hmm. RTS Sen TV juróon fi ay kataa yu bari mm-hmm. toog nañ fii ci plateau télé mm-hmm. gis doomi borom télé ba songanteeg avocat diw ci lu mel nii dëgg la mais fan la mujj jër-jër mbëpp lamb benn organ kese mënu ko promouvoir mm. lamb déedéet lu tax loolu waaw parce que dafay loo xam ni tey ñi ci bokk ñoo bari jili boo jëlee jandeer gii rek mm-hmm. dinga nga compter dix-huit yoo xam ne balaa ngaa yegg mbooroo ay lampes solaires moo fa am mm-hmm. ñoom seen possibilité ci déglu rajo la yem mm-hmm. on est d'accord d'accord tey boo génnee bool gii rek am na yenn chaîne télé yoo xam ne mënatoo ko jàpp waaye boo demee bitim réew Modou Modou yi di doomi Sénégal yi nekk partout dans les cinq continents. Mm-hmm. tele ci poos rek lañu mën a xamee li xew. dëgg de. donc làmb benn organ wala benn médium mënu ko promouvoir. Mm-hmm. benn bi ci des fi jamono toll. Mm-hmm. moo ci ère internet la jamono toll. jili li dangay toog seen kër. ñu jàpp nii télé ku ne yor sa téléphone. du mooy télé bi léeg koo ci laaj sax li xew ci télé danaan xaw ma. buur si kanam tuuti télé. Mm. décor lay doon meuble lay nekk si ngeen wax rek. non meuble non man moom yow kañ nga kañ nga toog seetaan télé. <laughs> Ah, waaw mais yàlla. kan kañ nga kañ nga war a laaj gis may laaj. mais daal lay laajal ni kañ la war a laaj yow. déet moom ko ay laajante lay doon ndax ñoo bokk. déet déet man a laaj. xam nga ba ci te loolu li lay koy wan mooy. sunu mbokk Modou Modou yi ne ci àll bi di leen nuyuwaale. Mm-hmm. dañuy liggéey ba pare bëgg xam li xew ci réew mi. Hmm. te kenn ku ci nekk fa ngay liggéeyee heure pause bi nga am di nga mën a profité génne sa téléphone. Hmm. jàpp wasaare xool li xew ci dëkk bi. ndax loolu mu amoon na bu njëkk. bu njëkk match da daan am fii Sénégal war a football. wala 16h li ñëpp tëj seen magasin yi wàcc. parce que dama bëgg teel a yegg pour mën a am match bi. Hmm. léegi da ngay sa magasin di jaay di seetaan sa match. àdduna mooy dox. te loolu yàggul buur Zos Xaadim Njaay 2 rajo laa ko doon déglu. xam nga. <laughs> loolu beneen euh, saa nag. Euh. Euh, ñun ñëpp dañuy comprendre te. Mm-hmm. je me rappelle Ibrahima Faye bi mu fi ñëw def indi le système peer review. Mm-hmm. bokk naa ci ñu njëkk gis. daje man Ibamar. Mm-hmm. ne ma yow yaa ma influencé ba ma gëm ni que làmb mën nañ ko jaay sur internet. il faut ñu gisee yàlla mi dara teewul ñu gisal hôtel Fana. Balla Gaye Modou Lo Balla Gaye Gris Bordeaux war fa daje seen première rencontre face à face te Gris woon Balla Gaye ñëwul mm-hmm. ñu waxtaan ci ay jéego yu bari parce boobu wala ba su jusqu'à présent sponsors yi raar na amatul ça se comprend mm-hmm. donc ñoom ci li ñu mën a rabattre wu mooy ci internet bi ak le système pay per amul problème mm-hmm. mais bu fekkee ne dañ ci ànd en synergie ñun ñëpp jàppale leen ci lay gën a yomb xamante li yow mi dàll bii di ko jaay. Hmm. am ci dix paires est-ce bu ko nekk ñëwoon jël benn paire kii dem Guédiawaye kii dem Pikine kii dem nangam doo teel noppalu. Hmm. am na ay combat yu fi jaar bu yàggul. Hmm. mbër yi ñooy dem bay jël seen téléphone. di di di di woo presse bi daal di dimbali ñu ngeen ñëw. waaw donc loolu. loolu c'est teewul ñun tamit. nañ leen comprendre les promoteurs. Mm-hmm. Euh, mënoo jël deux cent millions trois cent millions def ko ci làmb te doom système boo ko. boo ko boo ko récupérer mm-hmm. loolu saa se comprend. Mm-hmm. mais loolu lépp mën na ne. te du yàq sunu collaboration ñun ak ñoom dara. nan lay nekkee. technique moom. jile. combat Papa Sow. Ama Balde. Pape Abdou Fall keroog moo ko tëgg ak le système PPV. bi mu koy tëgg dafa yebal buzz ne ko demal ci organe yëpp nga waxtaanal ma ak ñoom buzz bi mu ñëwee système bi ñu proposé. dafa yomboonte neex. muy ban système. buzz daf ñu ne ah, buur kat làmb ñun ñoo ko moom. ci ci suñu plateforme la ñu koy jaaye léegi li ñu def mooy yëkkati suñu liens yi jox leen. yéen mhm. site yëpp. kuy seetaan làmb ji mu neex la ak mu naqare foofu nga dugg te foofu ngay jëndee deuxième condition bi mooy que site yu mag ñi may ñu ay bannière bu làmb ji desee quinze jours. Mm-hmm. troisième condition bi mooy ngeen ñëw filmer yéen topp événement bi ñëw estat ba mbër mi ñibbi ba minuit ngeen soog a dugal seen continue ah, yomb na franchement teewul face to face ak point de presse yëpp presse yëpp dañuy teew mm-hmm. liggéey ci parce que engouement boobu. Hmm. mooy charme làmb. ñu di ko waxtaanee. xoolal barki démb si tak Papa Sow ñu ngi koy hmm. waxtaanee ci grand place yi. Hmm. lan moo may Pape Abdou Fall atu boobu. mooy parce que il a voulu collaborer avec la presse. Euh, léegi Nicolas da ngay wax mu ne la duma kuy joob di bàyyi si internet yi. parce que li ma bëgg porté bi mu bu ma bëgg ma am ko xam naa ni ñoom ñoo ko mën a jaay keroog seen face to face bi avorté. jur na coowul une semaine te làmb coowul fukki fan ba noppi suscité amateur yi supporter yi bu buñ sax na làmb ji doon tey mm-hmm. ñun ñooy xorom ci de loolu la yàlla dogal ku ñu fi bàyyi dañ lay bàyyi li nga yor rek amul problème xeexuñu xulóowuñu ah loolu ngeen nga jàpp yeneen moo la gën a xam li nga wax xam nga ne boo xoolee parce que nit tam day nit du nax boppam mm. jéeli bi ñu juddoo yàggul mais tam ñu ngi bëgg am ay ay fan mm. boo xoolee combat jàll avant ak kombaay jàll yi yi mag yi jàll fan yi hmm. da ngay xam ne am na différence làmb coow làmb hmm. coow hmm. te coowal làmb avant làmb la xam nga sànq wax nga ko buur wax na ko am na ay mbër yu mag yu la woo man am na mbër yu ma woo dem ma kaay sama open press ma ne ko mënumaa ñëw parce que dan maa tënk te loolu tey jii bu fekkoon tey jii la daan am mi ngi am duñ xaar duñ xaar ku nu woo ndax ñun jóge den fii dem ba ñeleñ kon kii dem ba ñeneen xaar ku ko woo. leen nag parce que ñoom tam seen raison la nekk. Hmm. ñoo liggéey seen xaalis ñoo ko moom. Hmm. fii nga ma yem fii laa lay yem. waaye daal xam naa ne boo tëggee làmb génn ci internet bi néew ma sa làmb dana mel na mu war a mel de du ko mel de. Hmm. waaye dana des lool parce que dem nañ ba ban ay nit di ma woon naan ma làmb diw ak diw kañ la. te boobu làmb ji trois jours la ci des. promoteur bi moo ko bëggee noonu. ah ba peut-être parce que ku nekk ak si système bi ngay liggéey itam di ko ñaanal itam lim ci bëgg yàlla defal ko ko ci. Hmm. ndax ñoo bokk réew mi te kenn ku ne yéene nga sa morom jàmm. Hmm. waaye xëccu asamaan seeta seeta séentu asamaan daal jarta bu hmm. kenn ku ne mën ngaa liggéey te doo yàqal sa bopp. beneen bi ci des tam mooy mooy comme ñun suñu biir tam. ñu organiser wu. ah yéen moom bul ne yéen ci nga bokk. Ah, yéen ñëpp yow ci nga bokk. Ah, ndax yow ah. fu dawee jaam yi nga daw jaam yi. <laughs> yow yow a ko bokkandoo. fi ni jamee baaraam mooy. Mhm. manque organisation dafa xaw a mhm. nekk si ñun. dafa am loo xam tam dañ koy wax même du neex mais danga koy wax. Mhm. parce que tam bu fekkee da nga tëgg sa làmb def ci say centaine de million deux mille cinq cent sites nekk ci kaw ci ci ci ci ci géewu làmb bi day xaw a déborder. te bari na ñu ñuy tuddee site internet te sax du ñu internet. ay youtubeur lan mm-hmm. mais tey buñ taxawee ñëpp dañuy jàpp internet la. Mm-hmm. loolu d'accord naa. Mm-hmm. ba tax ñun ñu gën a organiser wu waat xam ñooy kan bis bu nu toogee xam li nu yor. du nu fekk kenn nit ñee ñu fekk si. nit ñee ñu fekk si. parce que nit day am bis def ci ay millions di xaar retour nga jaayal ko bis bi ñooy dem ci ëppal presse ñooy dem ci face à face yi. télévision yi actuellement nii seen jéego ci làmb bareetul. déedéet image sax internet bi la ñuy jël. ñu la nga ci ëpp presse ñu la ñu la may ma image. demoon nga ëpp presse may ma image daal di monté def seen logo jeex na parce que coono ba ca nekk jaralu leen ko ëpp presse nga li ciy daj boo jógee ëpp presse su ma demee damay naan ndox lu tëdd. ndax daan may coono coono ba sans faar dama ne laa kat dañ cee ay xeer. ndax bu mbër bi da fit jaar nii nga daw jaar nii ñaa ànd ak mbër yi xamuñu liggéey jiir yi dañ lay daal di door ay conc bu ma ñibbee damay tekk sama daal yi tëdd boobu coono nag da ngay xam ne bëgg moo koy def kon nanu waxtaan te xam ne séntu asamaan daal jarte bu konti manque de consideration bi parce que lamb d'habitude bu ñu ñëwee nga nekk presse surtout presse en ligne bi booy ñëw di dugg si niñ lay buntu xataalee niñ lay xatalee niñ lay kii loolu yaa est-ce que yéen ko liggéey ci lamb. non non loolu ji daf ci am loo xam tam ci nit la. Mm-hmm. parce que dafa am loo xam tam sa yëfu bopp la. Mm-hmm. du presse sa personnalité bopp la. Mm-hmm. man de wax dëgg yàlla du ma ñëw ci benn buntu làmb hmm. ñu may bundu xatal mbaa di ma ñàkkal fayda hmm. bon du la ko may hmm. sama charisme du la ko may te wanuma la ñàkk fayda gu tax nga may wan loolu yaa moom sa événement bu la neexee ma dugg liggéey bu la neexee bëggumaa liggéey ma ñibbiwaat te du ma dem ma woowul te sama ngor mooyu ma tam ma tàbbi ci événement boo xam ne liggéeyu ma ci bari na ci yoo xam tey dama naan sama cameraman du dem c'est parce que liggéeyu ma ci avant làmb ci kon comme liggéeyu ma ci boobu ma tooñ naa toog sama kër am na hmm. ba tàyyi hmm. mais dem ci buntu moom ñu may bund xatal loolu moom dafa am loo xam ne nag du yëfu presse yëfu nit la hmm. du ko may kii ko soit parce que loolu moom man maa ko moomal sama bopp kii ki nag la muy gis ci yow ba tax mu ñàkk laa respecte baa bu lay doy jël xëj na yow yaa koy wan loolu adduna ku ne da jox sama doom cee rek Sénégal door mën a jëm kanam buur damay ñëwaat ci respect parce que gis naa fi bërki démb benn mbër euh, franc def open press dara desul lu dul wax mu bedd leen fa dem yoonu loolu bi ko gisee c'était la première fois ñu di ko gis ci làmb mbëru làmb def ko ban gis-gis nga ci am. waaw xam nga euh, pour ma àtte ko d'abord foog ma nekkoon par nekk ma foon dama yeble woon. Mhm. bon li ko motiver ba mu def loolu d'après dégg naa explication mooy Modou loo moo fa ñëwoon nangam nangam genre affaire yi quoi. mu waaw bi bi mu waree dem xaw ma nag lan xale yi nangam mais. Mhm. Euh, ak lu mën am. mooy ñoom ñëpp ku ci nekk bi ngay débuté. Mm-hmm. soxla woon nga presse te ñun xam nañ ci dara. Mm-hmm. Euh, xëy na yéen ñi mujjee ñëw ci milieu bi sax garaawul. Mm-hmm. mais tey man ak ñu mel ni man. dañu daan woo père buur doo ci jàpp. moo tax nag man personnellement man benn mbër mun a fees sama bët ak koo mën doon barke Cheikh Moustapha Mbacké. mais euh, wolof dafa ni euh, bukki bu dabee ponkal. ci doxin wala ci doxin wala. la presse en ligne dañu war a changer suñu doxalin. ci lu bari. ma surtout suñu comportement. damay euh, faral di wax ni le mot une presse poubelle. Mm-hmm. ça fait mal au mooy tey utilité ban ak taxawaay ban la ñu war a mën a am ci réew mi chaque jour damay sawar ci jël l'exemple de Farel. Mm-hmm. ñaata doomi aadama la fi dimbali ñu opéré leen. du jeex. ñaata doomu aadama la fi dimbali ñu seen situation changé. du jeex. ñun presque en ligne bi ñaata artiste lañ fi promouvoir gunge leen. du jeex. ñaata mbër. du jeex ñaata politicien. bari na pourquoi suñu yu positif yooyu duñ ko jël teg ko à la place de de yu yu yu bon bon yooyu ñu ñuy waxal. Hmm. léeg-léeg nga gis nit ki buy wax ci ñun day utiliser ay termes yu grossière réseaux sociaux yi. Mm-hmm. fan rek lañu mën. Mm-hmm. site internet yi. fan rek la ñu mën pourquoi site internet yi ña fa nekk di fa liggéey du ñu ay kilifa wala ñooy père de famille. donc pour ñu mën a changer données yooyu. Mm-hmm. mooy que ñun tamit faut qu'on soit plus responsable. ci suñu liggéey ak suñuy doxalin. nee naa média mi ñor taal na am réew. tas na ay kër. gàddaay gàddaayloo na ay famille. gerte loolu am dëkk mais nag buur vraiment ñu waxante dëgg mais buur information yi presse en ligne bi di génnee. waa yu ci bari te du doon dëgg. waaw waaw barki démb rek. Mhm. Euh, may ñaanal suñu papa saa Kajoor boo mu génn àdduna. Mhm. yàlla yërëm ko taxare ko àjjana. Mhm. mais génn na fi àdduna ñu del saa Kajoor numéro 2. def ko waaw xam nga ba tey yaa ngi may yaa ngi may fekk ci li may wax. ñëwal mooy li ñu war a joxe mooy des des informations sûres et vérifiées. léegi loolu ñan ñoo koy joxe. ñun ñun ñooy les vrais acteurs yow fay xëy. sa sa sa rek chef war na mën a tey man Dakaractu gi ma nekk. Mhm. su amee information bu concerne làmb. Mhm. balaa ñu ci jëf dara. man la ñaan buur yi dañu dégg ni diw de nangam. Mhm. su ma ko yëgee te mën ko dëggal ñu bind ko su ma ko yëggul dinaa vérifier source bi parce que bu ci erreur amee. man maay responsable bi alors mhm. noonu lañ koy doxalee ci wàllu football. ci politique mooy source boo fa gis bul ko werante mhm. ci information mooy lu am la. Mhm. te am na yeneen sit web yu mel noonu. maintenant nag lii suñu problème majeur. mooy les youtubeurs. man mi jiite naa ci kuréel boo xam ne mooy le groupement des jeunes reporters. li tax. ma nangu ñu dajaloo ci kuréel googu ma téye leen. tey jiite groupement des jeunes reporters jiite charge de reporter de lutte en amul amul noflaay. mais xam nga lu ma ci jublu. su ma nekkee seen biir jiite leen dinaa leen mën a wan yoon bi. parce que ñooñu ñooy problème mu presse en ligne. Mm-hmm. donc bàyyi leen ñu dem. bu yàggee day yàq lii. ñoom dañu yàqule ba pare lii yàqu. te alors que am nañu chance mun leen contrôler booy euh, bu ma dee xool groupe bi sax damay tiit parce que plus de deux cent cinquante jeunes yu ci nekk. mais ñooñu est-ce que dañ leen war a bàyyi nii rek ñu ñu dem euh, fu ñu amee information for la ñuy for ci page jàmbur. donc gis naa ni que débat yi dégâts yi mu ngi commencé. Mm-hmm. wàññeeku parce que au moins am na ci. kuréel gu ñu daje. Mhm. boo xamante ne que am na ay nit yu responsable yu fa jiitu ñoom tamit ñu nekk ay xale yu dégg ndigal chaque jour dama naan leen euh, dee leen ko teg ci yoon. Mhm. dee leen ko teg ci yoon ba ñenn ñi gis nañ ne que teg ko ci yoon boobu mooy seen njariñ mais beneen phénomène bi. Mhm. mooy ñu ñu tuddee les buzz la majeure partie d'entre ñi ñu koy def. ñoo ko bëggee noonu. Hmm. oui da gis. ku def ngan na njombe bëgg am la buzz wala buur nu mu demee nga ne maa mun la xoolal sama vidéo bi dóor ko waaye. ah bon waaye ñu coow ko ñaari fan. wala nga gis ku bëgg a régler diw compte compte personnel mm-hmm. am ci lu mu dal ci vidéo am dara boo faril faril kii def daf mënoon jaay gàtt. na ma baal sax ci terme bi. Mm. vidéo bi caw ko waaye moom nu ma def ak yow. yow yow buñ la waxee loolu. yow miy liggéey. Hmm. man de su ma ko doon def dépassé naa fii. waaye bu yàpp yëpp melul ni jën. bu yàpp yëpp meloon ni res. paaka du ci am yoon du ci am buur li ma lay dog foofu mooy man hmm. man li ma naan si liggéey bi nit woon na ma. Hmm. ne ma kaay nga tourné nga émission pour ma yàq diw. ma wax te li muy wax peut-être am na fu mu sukkandiku loo xam ne bu génnoon tey taal dëkk bi. te Medoune Diouf mi may seetaan xam na ki may wax. parce que ki ma woo ko. dem na ba ne ma kaay woo la yowoo na la hmm. kon xam nga li may wax hmm. kaay ma wax te kooku tey di koo xam tey jii nit ñi dañ ko bàyyi xel hmm. kaay ma wax dem na ba proposé ma ne ma dama lay jox quatre-vingt mille ma ne ko man dërëm ak junni laa yemale ndax ku ñaag suurul ñett du la suur ñëwul ma defal la nànga ma ne ko noo baax na ndax man nit du yàqee nit ci man du wax lu ñaaw du ma du ma arme kenn. Mm-hmm. xeexlewuma kenn. sa problème yow ak diw yéen ñaar la réglé leen ko. Mm-hmm. mais du Dakar Buzz nga koy waxee ci Fadel. Mm-hmm. si di nag bari na demal wër ku la neex mais yooyu mooy waral nga tey fekk tey benn nit. peut-être mu bëgg Buzz bëgg bruit bëgg maa njëkkam information bi. mu woo la yow kat damaa bëgg a wax nànkam kooku bu fekkoon muy ànd day teg ku dugg a daw. rien que pour génn information boobu. mais dina am information bi génn ko mais yàq ga muy yàq àdduna kooku. Mhm. te fa yow a egg du man yeggu fa. moo tax lu nit di génne na ko xool lu nit di wax na ko xool. Mhm. man soo ma woowee sax di ma wax affaire émission sax dama lay laaj ci lan la ñuy wax. Mhm. ci lan la ñuy wax nga ne ma nangamay la noo Dakar ba du xul du teesante kat. du tontonte waay. waxal ci leneen. boo xoolee ba ci social yi may tourné sax léeg-léeg ma jëli ma laat mu bëgg a dugg ci xuus ci diw de nangam bëgg tàng ma ne ko non loolu concerne wuñu mhm. li mu indi mooy jàppale la pour nga wër. dëgg la nan wax ci loolu. Mhm. moo tax nit ñi balaa ñoo génne information noonu xool li ñuy génne ndax li mu mën a defar bari na mais lim mën a yàq daa bari. Mhm. te man de nee naa leen na ma ñëpp dégg man nit mukk du dégg ci man ma wax lu ñaaw. déedéet damaa xooloo ji li kaay wax ma ma ma taal ko coow. non tàyyi ko du ma dikk.